الشقة نساء يبذلن أموالا له من أجل البهاء والجمال mbokki julli di mbokki taalibe yi assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu comité international pour l'écriture de l'histoire générale de la fayda ñu sasee ko ci ndigalu xalifatu saaxibil faydati tijaaniya cheikh mohamadul maay cheikh ibrahima Niass ci njiitalu cheikh ahmad bukaar cheikh omar roqi ñang ñoo am mbégte di yëgal te di woo mboolem julli ci lancement officiel bi ñu amal ak levée de fonds pour mën a saytu bu baax projet boobu nga xam ne xalifa bi moo ko ko dénk te mu laaj capital bu am solo lu toll ci juróom fukki nit ñoo xam ne ay borom xam-xam lañ ay gëstukat ay professeur ak ay bindkat ci réew mi ak ci bitim réew ci lancement officiel ci projet bu cher te am solo yoo xam ne dajale na lu toll ci juróom fukki gëstukat ak ay docteur ak professeur ci nationalité yu wuutee te fasantikoo ci àdduna bi ñetti langue ci ñeent fukki téere ak juróom am équipe boo xam ne bariwut danañu wër réew yëpp yi nga xam ne baa jaar na fa ngir gëstu la fa baay def jotaay yim bokkoon lam fa def ak lim ci wax yëpp ñi dajale ko moo xam yu ñu bind wala yu ñu filmer wala yuñ ko fa photo ngir ñi mën ko delloo si boole ko ci mbind yi ak gëstu yi ñi def ñetteel ba ñu tekki lépp loo xam ne Mawlana Cheikh al Islam Alhaaji Ibrahima Niass Baay bind na ko moo xam ay turc ak urdu langue pakistanien yi ak indien yi dañu leen taxawal kër goo xam ne day mool téere baay yi ak mboolem mag ñi nga xam ne ñoo toppoon baay yi ak ñiy bind ba léegi ak centre boo xam ne day gëstu ci Mawlana Cheikh al Islam Baay ci xalaatam dundam ak ay gëstoom moolaale ay téere yoo xam ne tin dafay nekk ci capital ba pour yombalal ñi nga xam ne dañuy gëstu te jugee bitim réew ñi defar benn correction boo xam ne biographie lay tudd ñi jagleel ko muqaddam faydu bi bi mu tàmbalee ba léegi projet la boo xam ne nag gént la woon waaye mu ngi bëgg a nekk dëgg bu si ñëpp jàppee projet boobu nag dana laaj lu bari ci alal ci kàttan ak ci xam-xam bu si ñëpp jàppee comme ni ko sëriñ bi waxee ci leetaram dina nekk lu yomb ci biir leetar bi mu ngi ñaanal ñëpp topp tànk bàyyi nekk ay taalibe ci projet bi xalifa bi jox Cheikh Ahmed Boucar Niang bàyyi am na lu mu wax ci ay mbindam fay naqutuuti lil anaami saadatun walam yashqa yawman man wa qattiya sama mbind texe la ñeexal mbindeef yi am na faneen fu wax wa maratan uxra taraw ajaban min faydi zal qadmi imaamu nujaba baneen yoon da ngeen ma xam faneen alatul bihar zaaxiratin wa inna alatul qura wal muduna bal hal jibala arum ridal bari li nusrati diinihi wa ubridu lil jiilil jadidu misaala wax ji la mu wax ci ndaw ñi projet bu mel nii la doon leen junji pour wax ndaw ñi na leen projet bii seen projet la ndax ñoom la leen bàyyi créer projet projet international lay doon ndaw ñi neen fexe jàpp ci seen alal ak ci seen seen doole xam ne bàyyi lañ ko defal mbokki woote baa ngi noonu jugee ci xalifatu saahibil faydati tijaaniya mu jox ngir mu taxawal projet boobu samedi la fukki fan ñaar ci weeru juin ci résidence abdoulaye bayero këru gan mu di levée de fonds ñu ngi ci woo ñëpp jamaraj musamakula rajimin ala marqahu ya lahu min